nekk sénégalais nga nga nekk gambien mënul nekk Ceesaay la sax Ceesaay. ah Ceesaay <laughs> <laughs> Ceesaay non déggoo ma de laaj leen ko. Ceesaay mooy la. waaw mooy Cissé fii rek mais Ceesaay la. ah d'accord waaw mooy ah, Ceesaay. ah d'accord <laughs> euh, non non non non non de toute façon man pour vous dire vrai. Mm. ay waxam bëgguma sax di attardé wu parce que man bu ma jëlee sama yoonu bopp damay xool et puis ñu bëri dañ ma nangul sama décision parce que ay nit yàgg nañ ne Kali kii doo naw leen kii waroo di ànd ak moom histoire jox na ñooñu raison parce que moom si boppam moo ko wax ne nitu intérêt daf ma doon toppee intérêt kon na yeneen sénégalais moytu parce que moom nag bu ko am ah, moom nee na képp ku muy àndal intérêt tax man du ma ànd ak nit ci intérêt jamais loolu bu la ko nit waxee moom ba yóbbu nga xooli ne noonu def daal. Hmm. sincèrement parler bëgguma sax d'état de tey ngeen baal ma. parce que mosuma si bëgg wax. Hmm. parce que jëmale ma kanam quoi man laa bëgg. d'accord la ciy xaar nga yëkkati ci ay euh, euh, ko loxo te mu nekk lu bett ñenn ci Sénégal yi parce que ñu bëri jàppoon nañ ne Ousmane ak dayoo ci Sénégalais yi ñu koy toppee euh, waruñu woon yombee nii état bu Sénégal ko loxo tey yan ngay waaw li ma siy wax rek mooy comme lu ñu yàgg xeex mais Ousmane Sonko du immortel Ousmane sonk du xut bu zaman Ousmane Sonko du walliw fii tëj nañ fi Mamadou Dia tëj fi Abdoulaye Wade tëj fi Karim Wade tëj fi Khalifa Sall tëj fi Idrissa Seck tëj fi yeneen sénégalais ba ci man mii tëj nañ ma Ousmane Sonko gënu ma ndey gënu ma bàyyi lan mooy yeneen sénégalais yi ñu tëj leen Ousmane Sonko kenn ko tëj. fii ko wàcc yoon yoon dal sa kaw bu ñu sàggane woon ba ñu ne am na ko tudd Ousmane Sonko mu ngi Sénégal nguur mënul ko dara baye ba ñu jaay suñu Sénégal gi Gambie ah bah oui parce que bépp Sénégal bu wàcc yoon yoon dal sa kaw benn Sénégalais ñu ne si dix-huit millions Sénégalais wàcc na yoon yoon mënul dal sa kaw kooku baye ba ñu jaay suñu Sénégal gi Gambie donc na xamoon ni que bés day ñëw rek fale mu mujjoon fii te lii yëpp moo ko andil boppam waa si defatul politique no defatul politique parce que Ousmane Sonko bu doon mu ngi political di ne Macky Sall liggéeyu jëlee leen fi Macky Sall fal leen ma 2024 loolu mooy politique mais génn leen dajji leen génn leen xeex leen génn leen rey leen génn leen dóor leen faalewuma général faalewuma magistrat faalewuma procureur faalewuma sax kilifa diine parce que sunu kilifa diine woo war nañ ko fi ne ko bàyyi leen lii te dem liggéey foofu la waroon jaar lépp luy waxu fitna mu tege na mais dafa ëlbati gën a raakaaj di wax fitna du matin au soir tey fale mu am lii moo tax ba mu amee tamit comme ni gars yi di waxee dégguñu kilifa diine yi mais tere mu të bàyyil mu gis kilifa diine yi deux mille vingt un bañ ko jàppee was lu nu seen àq ñaan nañu njiitu réew mi baal ko mu baal kilifa diine yi woo ko ba mu ñëw ne ko sëñ bi demal nga liggéey noonu lañ ko defee woon Macky Sall en deux mille onze kii doo naw leen kii waroo di ànd ak moom eh, histoire jox na ñooñu raison parce que moom si boppam moo ko wax ne nitu intérêt ma doon toppee intérêt kon na yeneen sénégalais moytu parce que moom na bu ko ah moom nee na képp ku muy àndal intérêt tax man du ma nit si intérêt jamais loolu bu la ko nit waxee moom ba yóbbu nga xooli ne noonu def daal sincèrement parler bëgguma sax d'état de tey mooy sax dernière encore ngeen baal na parce que mosuma si bëgg wax parce que jëmalewu kanam quoi man lu may jëmale kanam laa bëgg bokk ci Ousmane Sonko yoo xamante euh, nañ ko loxo te mu nekk lu bett ñenn ci Sénégal yi parce que ñu bëri jàppoon nañu euh, Ousmane Sonko waaw li ma siy wax rek mooy comme li ñu yàgg xeex Sonko du immortel Ousmane Sonko du xut bu zaman Ousmane Sonko du walliw fii tëj nañ fi Mamadou Dia. tëj fi Abdoulaye Wade tëj fi Karim Wade tëj fi xalifa Sall tëj fi Idrissa Seck tëj fi yeneen sénégalais ba ci man mii tëj nañ ma Ousmane Sonko gënu ma ndey gënu ma bàyyi lan mooy yeneen sénégalais ñu tëj leen Ousmane Sonko kenn ko tëj fii ko wàcc yoon yoon dal sa kaw bu ñu sàggane woon ba ñu ne am na ko tudd Ousmane Sonko mu ngi senegal nguur mënul ko dara ba yeboo ñu jaay suñu Sénégal gi Gambie ah bah oui parce que bépp sénégalais bu wàcc yoon yoon dal sa kaw benn sénégalais ñu ne si dix huit millions sénégalais wàcc na yoon yoon mënul dal si kaw kooku ba yeboon ñu jaayee suñu sénégal yi Gambie donc na xamoon ni que bés day ñëw rek fale mu mujj yoon fii te lii yëpp moo ko andil boppam waa si defatul politique non defatul politique parce que Ousmane Sonko bu doon mu ngi political di ne Macky Sall liggéeyu jële leen fi Macky Sall fal leen ma 2024 loolu mooy politique mais génn leen dajji génn leen xeex leen génn leen rey leen génn leen dóor leen faalewuma général faalewuma magistrat faalewuma procureur faalewuma sax kilifa diine parce que sunu kilifa diine woo war nañ ko fi ne ko bàyyi lii te dem liggéey foofu la waroon jaar lépp luy waxu fitna mu tegee ko ne la mais dafa ëlbati gën a di wax fitna du matin au soir tey fale mu am li moo tax ba mu amee tamit comme ni ko gars yi di waxee dégguñu kilifa diine yi mais tere mu të bàyyil mu gis kilifa diine yi 2021 bañ ko jàppee was lu nu seen àq ñaan nañu njiitu réew mi baal ko mu baal kilifa diine woo ko ba mu ñëw ne ko sëñ bi demal nga liggéey noonu lañ ko defee woon Macky Sall en 2011. Macky Sall ba mu ñëwee si Dakar bi ñuy xeex 2011 kilifa yi dañ ko woo ne demal liggéey kenn desatul Macky Sall Dakar dafa liggéey ba jour si jotee am na lu muy am. mais yow kilifa woo la nga toog mu ne jàpp leen ni benn doomu aadama bu dee seen i ñàkk fayda yi safara ngeen jëm wax la nga waroon a dégg fu muy waxee nga bañ a dégg loolu ngay toog naan est que pare ngeen pour xeex est-ce que ngeen pour dee est ngeen pour yàq mais sunu Sénégal gi soxlawuñ ci ay taal bus ay yàq ay BRT sunu Sénégal gi soxlawuñ ci taal ay Auchan soxlawuñ ci taal ay station sunu Sénégal gi dañu xool nu mu taaroo parce que Afrique ba mu daj yàlla sunu borom Sénégal dong la dogal fitna amagu fi laaj nag courant bi day coupé yéen seen liggéey bi sax dootu leen ko mën a def ñun ñëpp ñu ne xojj suñu biir kër yi waaye loolu jàmm moo ko gën comme moom moo nekkoon nitu fitna bi ndaw ñi dem nañu ba yeewu nag xam ne kii gaal bu leen yëgal gaalu yowmal xiyaam la leen di yóbbu ndaw yi wàcc nañ ci gaal bi dëpp muy teel ah baa dam leen dañ ko baax yii mais xam na si dara bañ ko jàppee léegi mais la moo mujjee xew mais dëkk bi dëkk bi dara xew fi ah mbaa baa wi lan moo fi xew mais dam la ni nit ñi ñu ngi jàppoon ne bu ñu jàppee Ousmane Sonko y aura des milliers de morts lu mu dee des j'ai entendu que trois morts yàlla na leen yàlla yërëm mais dam la bëgg wax ni que fii sénégalais yi tegoon Ousmane Sonko tegatuñ ko fa parce que dañ doon xaar si moom projet boo xam ne dina leen wan un Sénégal meilleur dina leen wan nekk un Sénégal bu baax mais projet boo xam ne sénégalais yi ñoo siy dee sénégalais yi dañ siy jàpp jamono jooju say jabar duñ leen jàpp say doom duñ leen jàpp say njaboot duñ ci dee. waa nag sama bopp moom la gënal du bañ naa. mais wax nañu mystique bi nga xamante ni état bi def na ko moo tax xale yi. non non non y' a pas de mystique. non y' a pas de mystique. ñu ne dañ ko oosal ba jékku ko. non non y' a pas de mystique xam nga sunu borom dañuy naan. li si kanam daal réew li gën nit ñi ñoo yeew parce que yow boo toogee ak sa yaay wala sa papa si kër mu yedd la ne la ah gis naa ne da ko bëgg a Ousmane Sonko waaye xeex bi bul si dem da ngay déggal sa papa déggal sa yaay parce que les preuves sont la ñaata ndaw ñoo dee cinquantaine de jeunes kan moo leen rey est-ce que da nga a dégg Macky Sall ne genn leen xeex da nga dégg kenn si opposition bi ba si Barthélémy Dias ne leen xeex benn Ousmane Sonko la ñu dégg mu ne génn leen ngeen xeex. mais fii lu luñ fi teg yeneen i leaders yi teguñu ko Ousmane Sonko Idrissa Seck ba mu tollee si digg dooleem la ko Ablaye Wade jël fii ne ko ràpp si kaso bi neewul kenn génnal xeex. Karim Wade doomu président de la République la. fii lañ ko ne ràpp si kaso bi xiifalul génn leen ñu ne ñu xeex. Sonko mooy kan bañ ko naree jàpp mu naan génn leen xeex na génne ay doomam doomam na xeex. moom moo mais moo téye moom waaw mais génn leen ñu xeex loolu kay wund na la yow tey boo jógee pour xeex ak man jàppal ni yoon nga sa paaka mais bul xam man laa yor parce que ndawe mi lu ñu yor ay cocktail molotov cocktail molotov boo ko sàndee alkaati du dee boo ko sàndee kër jàmbur du ñu lakk ñaata nit a naroon a dee buñ ko taalee si station mu explosé ñaata nit a naroon dee bis bi ñu sàndi keroog te yaraax dégguñu ñaari nit dee nañ ci ñan ñoo war a lool mu wax génn la xeex est-ce que génn leen xeex jar na ko suñu Sénégal nañu xeex pour am yokkute nañu xeex pour am dund bu baax mais pas xeex pour benn politicien toog au pouvoir. waaw mais day wane ne que du góor. waaw hmm. waaw oui parce que góor yàlla da ngay nangu d'abord natt bu la borom bi teg mais maam borom Touba kan moo ko gënoon doon góor ba ko natt bi tegoo est-ce que dégg ngeen ko muy grève de la faim Abdoulaye Wade am na lu ko Abdou Diouf deful mos ngeen dégg Abdoulaye Wade mu grève de la dund na ko génn na Nelson Mandela 27 ans de prison mu génn nekk président de la république tey Ousmane Sonko li mu nekkee caaxaan la yow nga ne da bëgg nguur loo si góor bi da ko war a gar parce que nguur moo bëri karang-karang man mii nekk naa un mois prison.